ONG Al Ataa nekk ci réewum Qatar di organisation boo xam ni ñoo ngi ko taxawal ci atum 2002 waaye ci atum 2018 la ñu am statut ONG di intervenir fii ci réewum Sénégal ndax bëri na ay réalisation yoo xam ne def nañu ko fii ci fànn yu bëree bëri di dimbale askan wi néew ji doole ji di tabax ay juma am na sax lu toll ci ñaari junni ak ñaar téeméeri orphelin maanaam ñoo xam ne ay jirim lañ yoo xam ne at mu jot danañ leen séddale lu toll ci juróom benn téeméeri million ci sunuy koppar ñenn ci kilifa yi nga xam ne ñoo jiite ONG bi di Al Ataa dañoo ñëwoon ci Touba ci talaata ji dëppook le 6 juillet 2021 doon ziare si sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru di xalif général des Mourides bi ñu agsee sëriñ bi boole leen ak sëriñ Abo Mbàkke Muntaxa ak sëriñ Ahmed Saloum Dieng ñu ànd dem visiter ji complexe Cheikh Ahmadul Khadim di projet bu mag bi nga xam ne mooy université bu Touba bi sëriñ bi di liggéey fii ci dëkk bu sell bi. bi ñu agsee nag doore nañu visite bi ci këru xaside yi nga xam ne moom la waa daara Hizbut Tarqiyyah di liggéey ñoom kilifa yi ñu ànd leeral leen mboolem travaux yi fi nga xam ne fa la toll ñu yéemu lool nag ci projet bi ak qualité bi nga xam ne moom lañ liggéeyee chance bi. bokk na ci it la leen yéem moom moo di projet yu demee nii dañ daan gis ni état moo ko daan financé wala ay ONG. waaye bile Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général di Mourides moo ko financé ànd kook mbooleem yoonu Mouride bi ñu leen waxee ku projet bi di 37 milliards dañoo gën a yéemu. noonu it la ñu visité mbooleem travaux yi nga xam ne ñoo nekk ci biir complexe bi pàcc gu ci nekk ñu leeral leen ko ñoom ñu gis ne complexe bi bu noppee dana nekk loo xamante ni waxuma la Afrique waaye àddina sépp mën nañ fee ñëw di fi sàkku si xam-xam ñu yéemuwaat ci. ñaari at rek ñu liggéey ci lu toll nii loole di wane ne yoonu murit liggéey ak jaamu yàlla rek lañ leen xamee ginnaaw bi ñu jugee ci complexe bi dem nañ ca daara Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne moom la leen sëriñ bi booleeloon ngir ñu taxaw leen berndeel leen bi ñu agsee sëriñ Youssou mi nga xam ne mooy responsable moral daara Hizbut Tarqiyyah dalal na délégation bi fii ci complexe Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne moo nekkee ci Touba. waaye waxtaan ak ñoom leeral leen liggéeyub daara Hizbut Tarqiyyah jëm ci jàng yar tarbiya ak liggéey lépp ñu tënk ko ci ni nga xam ne noonu la ko Serigne Touba jàngale nga xam ne dara génnu ci lislaam gan ñi nag yéemu woon lool ci mbooloo mi nga xam ne ñoo di waa daara Hizbut Tarqiyyah ni nga xam ne noonu lañu ñu organisé woo waaye lislaam gi nga xam ne moom la ñuy dund te lépp di njàngaleem Serigne Touba. fii ci daara Hizbut Tarqiyyah lañ leen dalal waajal leen ay bernde yu am solo yu kawe lool seenu njoxtu ñoom délégation bi nga xam ne nag moo di waa ONG ATA sant nañ bu baax a baax daara Hizbut Tarqiyyah ci taxawaay bi rawatina bernde yu am solo yi nga xam ne moom lañ leen waajalal. ginnaaw bu ñu bàyyeekoo ci daara ja la ñu ñëw ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou mu dalal délégation bi bi ñu agsee présenté ko mbooleem ñi nga xam ne ñoo ŋànk ONG ATA ñu jébbalaale sëriñ bi ay cadeau yoo xam ne indaale loolu nañ ko ko ci ginnaaw bi ci lañ ko leeral seen seenub liggéey. ba léegi ñoom ñi ngi liggéey fii ci Touba. Moustapha Mbène Diagne tabax nañ fi ci loo xamante ne man maa ko jiite ñeenti jàkka ci biir Touba beneen bi mooy ñu ngi fi ci biir euh, kër Sëñ Amsatu Mbàkke benn bu sooy fële ci fi ñuy wax Touba kër Gol yooyu bari na itam loo xamante bi indi nañ ko fi ci ndimbal ci surtout Ramadan bi nga xam ne dañ koy dimbalee euh, way néew di doole yi plus de cinq cinq millions par par par kii yëxti sarayan loolu mooy li nga xamante bi ñoom ñu depuis at nag ñu ngi yéene pour ñëw nuyu si la ziar si la boole la ci ñu bokk sa njaboot liggéey diine ji la ñuy liggéey li ñu fi def ci Sénégal on est quatre cent cinquante mosquées ci biir Sénégal يعني نكتفي بهذا القدر لأن لا نريد أن أن نأخذ القضايا البسيطة يعني. هذا مبلغ من قال هذه كلها يعود للنفع لعامة الناس والفقراء والمسلمين وهذا مهم جدا عمل خيري شيء يزر الله 2200 من الايتام امن اجرم الايتام نعم يقدم لشيء كل عام للبريد ل 600 مليون فرنك ane dañu leen di jox jërim yi ñetti weer yu ne dañu leen di fay ci poste lañu koy jaaree poste jox ko néew ju doole jërim yi الحمد لله العمل كثير يعني في العطاء ولا نحتاج إلا الدعاء يعني من سعادة الخليفة يدعو لنا أن يوفقنا الله وأن يديم علينا هذا العمل حتى نستمر في العمل في السنغال ونقدم ما نستطيع أن نقدمه لأهل السنغال ولعامة المسلمين ما شاء الله ببركة دعائه إن شاء الله ومساعدته لنا جزاكم الله خيرا كثيرا سعد هذه دار للايتام الايتام تسكن فيها ما شاء الله فيها ويتعلموا فيها هذا منافع كثيره جدا منافع كثيره جدا معايا ونطلب منكم الدعاء دائما جزاكم الله خيرا ما شاء الله ما شاء الله ginnaaw bi ñu gisee ak sëriñ bi ONG ATA amaan nañu mbégte lool waaye leeral mboolem seen taxawaay ci réew mi rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba. ana Ibrahim Rushdi al mudir tanfidi li jamaiyat nee na moom Ibrahim Rushdi mooy njiital bureau bi nga xam ne mooy fon ONG ATA ONG la boo xam ni depuis 2002 lañ ko taxawal mais 2018 lañ am statut ONG. nee na aussi fukki at lañ def Sénégal mais tabax nañu fi lu mat ñeenti téeméeri juma orphelin yi nga xam ne aussi ñoom ba weer wu ñu am leen di jox mën nañ ci deux mille deux cent orphelin yoo xam ne chaque. Euh, année ñu jox leen lu mat 600 millions séddale leen ko mu jaar ci post bi pour assurer ni kenn ku ne da nga jot da nga war a jot. ñun aussi ataa yëngu rek ci tabax ay juma ak jël ay orphelinat mais dañuy dimbali femmes yi ci wàllu euh, ay ay machine couture di dimbali nit ñi aussi ci wàllu ay poulailler. Euh, pour xale yi mën a am liggéey dimbali nit ñi aussi ci wàllu yar ay xar wala yar nag lépp rek ngir mën a dimbali xale yi nga xam ne amuñu liggéey ñu am ñu daane seen doole am fu ñu amee dara. nee na koor bu jotit dañu dimbali nit ñi ci ay ceeb ak diwlin ak suukar ak meew euh, tabaski aussi bu jotit nañ dimbali jullit yi ci euh, lu mel ni ay xar wala ay nag yoo xam ni dañ koy dimbali néew ju doole yi nee na seen ñëw tey ci Touba nag dafa bokk ci yéttewoo gi njëkkitewoo kër diine ci Sénégal ndax xam ne placement bi nga xam ne kër diine am nañ ko ci biir xolu sénégalais yi moo tax tey ñu décidé ñu suñ si seet si Mountakha Mbacké visité wala université mag bi nga xam ne mi ngi koy defar lépp rek ngir dëgëral si diggante ak bi ñu duggee Tuubaa li gën a sedd seen xol mooy université bi ñu visité euh, lañ fa gis liggéey bu yéeme la liggéey bu rëy la te nee lu rëy la لذلك نرجو من الجميع أن يتكاتف لإنجاح هذه الجامعة moom rafet nañ jot université bi su paree jàmm dina bokk ci université nga xam dañuy servir doomu Afrique waxuma doomu Sénégal mais doomu Afrique doomu Afrique de l'Ouest mais doomu Afrique yëpp sa la wax nee na dugal seen na lu ñu teen ñu ñu fi gas ak koor di dimbali jullit ñi ci weeru koor ak tabaski yu si bëri suñ mi nga xam ne liggéey ñoom moo koy coordonné donc mooy Euh, soxna Bali ñëpp xam nañu fondation bi mu taxawal moom yàgg na def social waaye bi mu ko dee def ko muy structure moom bokk na ci ñi tax mu ñëw Touba waxtaan a moom ba xam ay projet am xam ay jubluwaayam mën cee dugal loo xam ci projet yi nga xam soxna Sango def naka jekk loolu daal te am nañ ci ndigalu sëñ bi ndax soxna si waxtaan ak sëñ bi euh, léegi rek bi ma ko waxee sëñ bi dañ ma waaw rafetlu naa ko te àdd naa ci ñu beral ak cant euh, nga xam ne moom la sëñ bi sant mu ñu mu teeru leen dalal leen euh, ak waa isbitar yi xam ne fa la leen sëñ bi yebaloon ngir ñu dallu fa xéewlu fa nee na gi daal yaatu na rafet na képp ku dugal sa loxo ci teeru bi ak ngan na léegi rek rawatina suñu mbokk journaliste yi nga xam ne soo ba tey ñu leen tënk ñu ànd ak ñun bàyyi seen liggéey yëpp couvrir jotaay bi yéen mu ngi leen di beral cant